salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn rabu géej a ngi nii boo xam ne dafa xam lool ni muy peese nit ñi ngir jàpp leen benn bés ay nappkat ñëw leen ci géej gi ngir napp ba ci yàgg ñu gis benn kees gu def ay or ak i jamaa yu seer nis tuuti seen bëgg-bëgg nekkul lenn lu dul wàcce ci géej gi jël kees googu bi ñu wàccee seen xol sedd guy ci li xam ne gis nañ ko waaye ab diir bu ndaw rab bi génn daal di leen lekk ñoom. am jeneen waay joo xam ne daf doon tukki nis tuuti mu gis jenn xale bu jigéen bu rafet bu toog ci lu mel ni xeeti gaal gu dëpp moom nag bëgg-bëggam nekkul lenn dul jege xale bu jigéen bi ngir waxtaan ak moom waaye dafa jëkk saay rekk cofeel ju rëy rëy dugg ko amul lenn lu muy def lu dul dem waxtaan xale bu jigéen bi mu egsee rab bi génn ci loolee da du koy lekk moom tamit bi jamonoy dox nga xam ne rab bi noonu rek lay peese nit ñi am benn mère boo xam ne daf doon dem ci doomam yi ba ci yàgg mu gis genn càq bu rafet rafet rafet ci diggu géej gi moom mère bi bëgg-bëggam mooy jël caq bi waaye moom mère bi dafa nekk koo xam ne dafa yeewu lool dane gis caq bu rafet bii du tax ma def li nga xam ne mooy sàggane sama dund wala ma jaay ko ci ay neen kon naa ko fi bàyyi rek te dem ndax man lii xawma lan moo nekk ci biir bëgg naa caq bi lool te itam su ma sañoon jot ci waaye maire bi daal di gëmm rek daan ne naa dem bàyyi ko fi bi mu demee ba xaw a sori tuuti rab bi commencé génne li nga xam ne mu di boppam waaye maire bi li muy dem lépp mi ngi gestuwaat di xoolaat caq bi xelam bi yépp amul lenn lu dul ndëkkul dara ci lu dul dem jël caq bi yóbbaale ko ndax xëy na bu ko jaayee dina nekk lu seer a seer ñu ba xaw a sori rab bi daal di génn daal di mer lool bi ko maire bi gisee. xam ne kat nakate rab bi moo nekkoon rab bi nga xam ne moo nekk ci biir géej gi di peese nit ñi leen jàpp dan li tax yàlla suturaat ma tey ji ba ma mucc ci rab bi nga xam ne jàpp ma mooy damaa doylu kon mbokk yi lan leen mën a jàngee ci histoire yi mooy doylu lépp loo xam ne moomoo ko ba fa waaye ñu bëree bari ñoo ngi dugg ci musiba yoo xam ne bëgg rek moo leen ko teg